Arsenal mi doon fëyyu fëyyu ci ki nga xam ne mooy Ansu Fati goney Catalan yi am nañ fulla ak fayda dëjaat nañ ko seen place beneen bi mooy Iliman Ndiaye Sadio Mané ñancoo national ak ki nga xam ni mooy Ismaïla Sarr Iso loolee ngi ci biir xibaar yi a tontu lu forox li nga xam ni kii di ñancoo national tontu na ko ki nga xam ni mooy journaliste sub allemand boobee lool da ngeen ko mën a am ci xibaar yi ginnaaw bu ngeen defee seen i abonnement yi da lay dimbali lépp lu nu ceewu ci YouTube bi nga koo raado ndànk teg ko ci taabal seetaan ko njariñ dong njariñ dong Ansu Fati moom la amal équipe bii la di Barcelone catalan yi lank kandaare juróom fukki millions d'euros yi nga xam ne Arsenal mi ngi yolla ngar di ji ma waxtaan waxtaanu wax set ci biir li nga xam ne mooy club boobee catalan yi xam nan gone gi li muy jar ak lan am ci moom ak li nga xam ne mooy clause libératoire bi ñu tegoon ci taabal ji caaxaani wuñ ko Barcelone caaxaanul àndut ak képp koo xam ne da ngay caaxaan catalan yi fi lañ lay bàyyi ndax xam nan ñoom li ñu jar ki xam li muy jar mooy ñancio national yow mii di ma seetaan xam nga ni kàddu yi mu yebbi tey daanaka kontaan nga ci man mii di la jox xibaar yi kontaan naan ci bikki ndax Gaynde Njaay dafa war a am fayda journaliste allemand bi nga xam ne moo ko doon posé question soxla ci moom ñaar ba ñetti question ñancee national jàpp ni kooku moo koy rey ci réseaux sociaux yi di teg ci deram bi naka sudul noonu moo tax gaynde gi am fullay xamal ko loole ba pare romb ko dem tëgaacu ci beneen gaat wan ko ni fulla mooy jaay Dakar loolee di mbégte ci képp koo xam ne der bu ñuul nga yor der bu ñuul tamit daanaka mën naa am ndam ci équipe nationale Sénégal daal ñett ñi ma ci soxla gars yi laaj la bu may samp ci biir commentaire yi juróomi football kat a ngi Jackson Nicolas Jackson Ismaïla Sarr Izo ak ki nga xam ni ah, ah, bu ngeen doon teg ñett ñuy ne ca kanam ah, ñett ñi kañ lay doon classé ko dana jafe lool waaye nag bëgg na ngeen dimbali ma ci bu baax a baax ndax jàpp naa ni loolee attaque boo xam ni gars ñi bu nu ko amee pour l'instant ni carte gi du benn yoon man nag xalaat naa ci Ismaïla Sarr Izo ci côté ndijoor bi ak ki nga xam ni mooy Sadio Mané côté càmmoñ bi Iliman Ndiaye ne ci digg bi bu fekkentee ne loolu saf leen ngeen bes un bu fekkentee ni xalaat ngeen la neen ngeen dóor deux ba pare andi seenu classement nay gàtt tey tegu ci teg ngeen jërë ngeen jëf gars yi